fani fani fani to acha cha fani fani fani fani fani to acha cha e wai ma dai wai san gari lam to jara ñun koo xam ne kii ñëw nga fii ne sëñ Abdou rek sëñ Abdou la ñu bëgg sëñ Abdou la ñu yaakaar tàllal nañ ko loxo di ñaanal nag mu yàgg ci suñu kanam ci barke sëñ Touba tey sàkku ci yéen ñaan ngeen di ñu jàppale ñun waa Touba Ndiané sonn nañ jigéen ñi sonn nañ jàmbaar lañ xale yu góor yi amuñu métier amuñu liggéey xayuñu gontuñu ku leen dimbalee tam ñu amam xay amam gontu yàlla jàpp ñu jàppale la sëñ Touba boole ñu jàppale. nii ñëpp nii ñëpp maay seen ca luma ma leen wax lu ne incha allah ko def denj na sama ñeent téeméer daante yoo xam ni su le. doon man dama ko ëndalé ñun amuñu ku maké Macky na maké waye waaye Abdou Bali rek ñun amuñu kudul wa waa Daaru te Abdou tey bu nekké ji li bëgg a askan bi motax ak bëgg dim dimbale Touba dekk mamam bi motax mu nekk ci li waye du ñariñam ndax lami am mo ëpp lii waaye bëgg na dimbalé wa Touba bëgg na dimbale jigéñu Touba. gis. mobilisation bu rafet la kon yéen contrat bi ngeen signé woon ak Cheikh Abdou yaakaar naa ni contrat boobu yéen remplir ngeen ko ndax biñ fi ñëwee tamit lii ñu fi fekk dal na xel daanaka mbooloo mi sax am na solo lool mais li ci ëpp doole mooy xol yu ànd ay xol bu ñu àndee rek lu ñu song rek mën nañ koo daan ñu nag dañoo jóg ñun nag dañoo jóg kilifa yabal ñu kilifa goo xenn ku xam ni kenn la ci Touba comme ni ko sëñ Abdou Lahat waxe léegi Cheikh abdu neex naa présenté ñépp ko xam kon moom tey mu futteeku ànd ak président Macky sàll ah soxna yii tamit topp ci ginnaaw Cheikh Abdou maanaam soxna yi toog ak mboolo mi toog ak waa Njànne yëpp topp ci gannaaw soxna yi ñu yaakaar Cheikh Abdou ba le soir du 24 février 2019 le président Macky Sall ñu fal ko au premier tour loolu mën naa nekk. sëñ Abdou da nga baax yaa ngi toog di bay sawar waaw góore waay. jàmbaar nga abdula nga baax yaa ngi toog di bay sawar waaw góor waay jàmbaar nga bal baax nga yaa ngi baax bu ne woon fekk la ngay baax waaw góor waay jàmbaar nga bu ne baax nga yaa ngi baax bu ne bon nga yaa ngi baax waaw góor waay jàmbaar nga fañ fañ fañ fañ fañ Ewa imana iwa isanngari lamtoro jara yàlla ba ñu yàlla boole bàcc mi at moor mii sant yàlla moom mu ñu boole bàcc bàcc yow sëñ mu siyaar mi ndax barki démb keroog sant bis ni tey ba fa demee siyaare sëñ bi sëñ bi waxtaan ak ñun dalal ñu waxtaan ak ñu suñu xol te loolu ñu waxit man gëm naa ko doyloo naa ko ndax sëñ bi xamal nañu ki li nga xam ne ci la jëmale kër dëkk bi kanam rek ci la nekk mooy sañ bi te ñun tamit ci loolu ci lañ nekk ndax amuñu lu dëkk sëñ Touba yaakaaru ku du borom dëkk bi kon lepp lu way di liggey ci jëmale ci dëkk bi ñu ànd yow amuñu lu tamit suñu ndaw yi amuñu suñu ndaw yi amuñu suñu xalé yi suba buñu wowe ñu jog buñu wowe ngon ñu jog heure bu mu fëggee ñun ñu ubbi nañ suñu buntu ànd nañoo moom ndaxte nee nañ ki ram di la bokk bu amé auto dina la si dugal te bàcc te bàcc moom moo ñu safoo moom moo ñu xam moy ñun ñun kan c'est parce que lii ñun yàgg nañ fi mosuñu am teewaay bii bërki démb dama kaa wax ni ko bàcc man mu ne ah, ma ne ko man de fierté bi ma gën a am ci sëñ bi mooy que ne dama koo bëggal sama bopp te xaw ma ko woon yow mi ma yóbbu si moom bàcc laay njëkk a sant waaye nag ñun fii ñun xale yi ñu dëkk fii dañoo am problème problème bi ñu am nag dañ leen koy teg ci seen loxo ngeen tegal ñu ko ci loxo sëñ bi sëñ bi yëgalee ñu ko ci Macky Sall Baye Cheikh yow sa diggante ak Cheikh Abdou sëñ Modou Moustapha moo ko boole ndax keroog ba nga fa ñëwee ànd ak ami daf la wax ni la boo delloo na nga fa siwaat ndax fii sa kër la sëñ bi fonk gum fonk sa jotaay bii moo waral mu jël sëñ Moustapha mi di kenn ci moom yabal ko kon nag dama lay wax ni la na sa xel dal ndax ñun boo gisee ñu bëgg a jàppale président Macky Sall dafa am yéene ci tuubaa dafa am yéene ci Cheikh Abdou ñuy ñaan président Macky Sall falu Cheikh Abdou nekk ministre ba xéewal yi mën a baawaan ba agsi fii ndax seen jafe-jafe yi président Macky bu ko Touba faleetit ak mu bañ ko fal Sénégal dinañ ko fal incha allah te Touba ànd ci moo gën. bu ñuy dundal bu ñuy dee lépp yaa nuy moom Seex ab yaa nuy moom yaa nuy moom yaa ko fi loo fi gën a yàgg day gën a neex soo yaa ko fi sëñ bi nga yaa ko fi loo fi gën a yàgg day gën a neex sëñ bi yaa ko fi te waay yaa ko fi loo fi gën a yàgg day gën a neex yaa ko fi. fañi fañi fañ fañ fañ doo ca caa. san menjadi lampu koro jarak yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wuru énergie Abdou Bali Touba bu soobee leen fi man ak suñ doole ak suñ kattan ak suñ man-man ñu ngi koy jàpp di ko ànd moom ba kere ñuy def le 24 février le 24 février liñ bëgg ñu watee leen ko mooy kenn ku ne bu 6 heures jotee na ngeen jox oto yoo xam di leen ko jox ñu man ci askan wi mën a génn wate ji buñ demee wate ji liñ leen di laaj mooy kenn ku ne jëlal carte Macky Sall wi dugal ko ci ambulo bi dugal ci laf wi bu kol boo wëlbati ko des andi ko may ko jaakari caaf yi bul ko ambulo bi carte weex wi la moo yor fas wi moom lañu woteel Macky Sall 2012 ñu gagné élection bi 2019 gagné élection bi 6 ñu ne wiiw Macky 6 ñu ne wiiw Macky jëf yu leer tax na tay ñepp kontan sax di la ko ko jëf ja dafa rëy te wax ja néew taacu len lii eh sama safaay maamam daaru xudus la dëkk taacu len lii eh ana taaw ee eh, doomi taw e eh, di sa doom taw e eh, ku ko ma ga gis daaru xudu sa jam eh sëriñ Abdou Bali ana ñu ko jaaral ana ñu ko bëgg ee ku faara ak mom

nanga nga teel a sangu ba set sol sa yu set dagu ndank dem ci urne ba ben bulletin la dañ len jox ku nek juróomi bulletin wa ñun ben bulletin rek moo ñu intéressé moy bu marron bi beige marron ta fas wi nekk ci ngelamu la koy man la koy tuddee photo bi nga xamni moy le meilleur candidat di le président Macky Sall.

pour célébrer la victoire du deuxième mandat du président Macky Sall Cheikh Abdou l'orec rek Cher Abdou l'orec rek tuuba tabax fi ay juma maki yow lan wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële ee eh, waay maa lay